te ne bi li ci Serigne Touba ñaan lépp waaye nit ki dina jàng ay xasida suba ak ngoon te du gis benn jeexal nit ci moom nga gis koo xam te ne day jël benn xasida def ko ak xasidaam di ko jàng di ko jàng di ko jàng mën na ko jàng ab bu baree baree bari par waaye def benn jeexal ci moom nga gis koo xam te da koy jàng diir bu gàtt mu soppi ko kon pas-pas yi ñooy wuute pas-pas yi ñooy wute ndax xasida yi boo ko jàngee danga nga ci yéene fas ci li nga bëgg toog fu sell jàpp ba sell jublu penku ñaan jàng ba noppi ñaan suñu borom ci li nga xamante ni bi moom nga soxla <coughs> ndax li ma xoon ni xasida yi dafa jóge ci ku tedd jëm ci ku tedd mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon mbir la moo xamante ni bi li ma xoon ni lu dul alquran ak hadis sama xasida yëpp gën te mooy lu wér kon bu demee ba waxal loolu boppam kon ab taalibe bu nekk war naa mën a jug ngir man koo sàmm comme li ma la waxoon ne la xasida doole ji nga xam ne sunu borom moom la ko joxloo sëriñ bi dafa waxoon ni damat niyal aqlaamu lil jundil kiram wa xaadilillahu biha xayril maram li ma boole ci kuréelu yàlla bu tedd ba muy lam doon sàkk muy waa ahlul badri sama xasida yi moom ma ko may muy lu tax ñu war koo fonk ndax la boole sëriñ bi ci kuréel bu tedd boobu mu wëlbati ko jox ñu ko bàyyeel ñu ko kon yàlla dogal na war nañoo war nañu war nañ koo waggar bu baax a baax a baax war nañ ko war nañu koo waggar bu baax a baax a baax mhm. ndax suñ ko waggarul keneen mënta jóge feneen ñëw di ñu ko waggaral jërëjëf Serigne Mourtala ba tey ñu ànd ak moom ci émission bi ah, muy waxtaane Serigne Touba ak xasida waaye ba tey it Serigne Mourtala dégg nañ ne xasida yi ah, day defare te lu wër la waaye ndax xasida yi kan la mën a defar akit it xasida yi kan la mën a yàq nan la nit di dunde xaside yi ba mu defar la ak it nan nga mën a sàggane xaside yi ba mu yàq la ndax muy njariñ ci ndaw ñi nga xamante ne nii maanaam ñu ngi dund xaside yi te xaside yi ki mën a defar mooy ki nga xamante ni su koy jàng da koy mhm. ànd ak njàpp mu sel jublu penku fas ci li bëgg yéene ci it li nga xamante ni moom la ci namm mhm. ndax sëriñ bi dafa ñaan boroomam képp koo xamante ni bi yaa ngi jàng xasida mi lépp lum lum ci biir day dal ci sa kon képp koo xamante ni bii xasida yi yaa ngi koy jàng na nga ko jàng anim bu mu gën a selle ci ay teggin ci ab yar ndax bu la wóoroon ni Serigne Touba mi nga xamante ne bii mu bind xasida yi dellusiwaatoon na ci jamono wóor na ne la amoo fitu dem di ko nuyu ci aw yorookum njàpp kon war ngaa mën a war maali xasida yi noonu mais nit ki waru koo yor te lu dul am am njàpp waru koo jàng ci lu dul am njàpp ki nga xamante ni nag <clears throat> mën na cee loru mooy ki nga xamante ni bii mën naa yor sobe wala mu jël ay xasidaam def ko ci poosam dugg ci wana loolu mën naa lor doomu aadama bu nekk ndax dafa nekk lu sell ndax salaatu na nabi moo ci nekk ndax bëri na ci xasida yoo xamante ni bii alquran la ko Sëriñ Tuubaa tëgge boo xoolee tey sura Asir yu baree baree bari am na ci ay bayit yoo xam te daanaka ay ay yoo xam ni da ciy dugg ndax am na fa yoo xam bi sootil kër fi am boo xam te ne sootil fajiri am leneen ak leneen loo xam te ne kon mu wóor na leen Sëriñ Tuubaa xasidaam yi da koo génne ci alxuraan mhm. da koo génne ci alxuraan ndax bu demee ba waxal boppam joxoñ ñu li nga xam te ni mook ko may te loola ba muy wax naan euh, dinaa bind bay tuxale la ca alliwa yi mahfuus di ko bind sama xel di ko bind di ko bind kon loola yaakaar naa ni képp koo xam te ne bi ab taalibe nga rek war ngaa xalaat bu baax wi Sëriñ Tuubaa jooju ba mën a waggal xasida yi xasida nag di loo xamante ni bii njariñam yaatu lool mhm. ndax sëriñ bi da cay ñaan ndax li mu waxoon ne ij'al qilaami wa midaadi naafian li taalibil ilmi wa habli rifan mhm. Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ni <clears throat> sunu boroom maa ngi lay ñaan sama xalima yii ak sama daa yii nang ko def mu nekk njariñul képp koo xamante ni bii jóg di di sàkku xam waaye nag maa ngi la ci ñaan yàlla na nga ma yëkkati kon loolu moom kenn wéranteetu ko mm-hmm. kon yëkkati gi suñu borom Sëñ Tuubaa ñaanoon loolu kenn wéranteetu ko nag Sëñ Tuubaa moom kenn nattableetu ko kon lim ñaanoon ngir taalibe yi nga xam te ne ñi ngi jóg di sàkku képp ku ko ci amut na xool moom mooy kan ndax Sëriñ Tuubaa lépp lum ñaan danaa wax naan suñu borom daf may may ba noppi soog maa wax ne ma ñaanal mm-hmm. kon bu ñaanee suñu borom wax ba pare ñaan suñu borom na la wóori suñu borom may na ko loola kon ki nga xamante ni nag dafa toog di jàng ay xasida sax ci guddi ak bëccëg te amul jenn aaju yoo xam dina ko am mu faju kooku war naa xoolaat boppam bu baax a baax war naa xoolaat ni muy def ci diggante moom ak xasida yi jërëjëf sëñ Mourtala xam naa tey moom laaj yi du bari ndax waxtaan wi dafa am solo waaye dañuy gis eh, nit day jàng xasida ba jekke-jekki def lu mel ni dafa tàggook sagom mu mel ni gis nañ ko lu bare bari ñu naan xasida yee ko yóbbu dafa aaloog nangam ndax xasida dana mën a yóbbu nit mu fannaa waaw mën naa nekk ci benn wàll mm-hmm. ndax nit ki ab xol mooy dund lu baax ab xol nag bu demee ba set ba ay bàkkaar nekkatu ca mën naa waral lu nekk te xasida day raxas ab xol ba mel ni perkaal bu weex tàll ndax am na benn xissa bu ñuy nettali ci Serigne Sali waxoon ni dafa am ku mus a ñëw ci moom ne ko day moom bi dafa mel ni si jàng xasida day mel ni luy dox ci jaww ji sëriñ bi ne ko Serigne Sali da koo tontu ne ko yàq gam ko yàq sax waaye waroon naa mën a naaw muy loo xamante ni bii lu mat a bàyyi xel la xasida duy foo du caaxaan ndax dégam doomi Sëriñ Tuubaa moo seede loolu ci koo xamante ni bii dañ koo wax ne ko buy jàng alxuraan day tàggali soon day mel na luy dox ci kaw jaww yi mu ne bu fekkante ne woon sax du ko yàq sax ma war naa mën a naw kon xasida lu war a mat a fonk la ndax sëriñ bi da ciy ñaan lu bari am na fuy wax ne wasax bi sudoora man tàngale moo sara am bi laa yaxtarim mu wax ni yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga ubbi képp koo xam te ne jug na sàkkoo xam sama xasida yi te yàlla na ko fegal mbooleem lu di ay lor ak i jafe-jafe kon sëriñ bi ñun la dimbali ndax bi muy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala ñun ñoo taxoon ndax ñun ñoo jàng xasida yi mm-hmm. moom bind la ci def tagg ci yonte bi sallallahu alayhi wa ba am ci garaat boo xam ni kenn musta am garaat tagg yonte bi sallallahu ku mel ni ku dul sëriñ amul kon ñun ñim ko bindal kon ñun mooy xasida yi mooy suñu njëriñ ñun mm-hmm. te sëriñ Tuubaa li ma waxoon léegi du ñaan yàlla lu ko yàlla delloo kon képp koo xamante ni bii jug nga jàng xasida xasida am melokaanu woo xam te soppi na la ñaar mooy mën a mooy nga sellet di ko jàng mu soppi sam xel mhm. day am ndax lu sell kenn du ko boole lu sellut mu ngi mel ni koo xam ne bi day sax ci lu yàlla bëggut ba pare wëlbatiku di jàng xasida yi loolu mën naa sax xasida yi sax mën na koo fàdd ci loolu kon mu nekk loo xamante ne bi ay selliti setti la yoo xam te ne jógee ci Sëriñ tubaa muy mbind yoo xamante ne bii da ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi suñu borom dafa wax ni moo gën lépp loo xamante ni bind na ko te képp ku ñu bind yonent bi sallallahu alayhi moo tax. muy bind la bu mel ne kon Serigne su jëlee xasidaam yi bind ko ngir ay njariñ jàpp naa ne bépp taalib boo xamante ne loru nga ca waaye xasit yëpp njariñ la ndax léegi léegi damay faral di dégg ñu ne. Eh, xasida gii ñuy wax euh, euh, jaalibatul muraqib mm-hmm. am na ñoo xam te ne da leen dofloo leen tàggali seen sago waaye mi ngi aju ci ki nga xamante ni bii moo koy jàng ak nam koy jànge mm-hmm. ak sell ga war ci moom loolu day am ñoo xamante ni bii loolu la li ñuy sikki sàkk ndax kii xasida gee ko def nii wala ñàkk sell moo waral xasida ko def ko nii loolu nañ ci bàyyi xel ndax léeg-léeg gis koo xamante ni bii day mel melokaanu woo xamante ni parce que wala bi di yorub jikko xasida ñu tudd ko di waa ahlu durus yeeg moom dafa àgg te nangam ki nangam te fekk na àggugul fenn boo amoon bu fekkonte am nga bëti xol yu gis da xam ne kii génnut buntu néeg bi nam war a jàngee ak nam war a doxee foofa la jaarul day am day am kuréel yoo xamante ni bii loolu day am ci seen biir léegi léeg da nga ci gis koo xamante ni bii amoon na ci kuréel goo xamante ni bii euh, fa ma dëkk ci njaarib sax amoon na fa maanaam dañ daan duus ay xasida ba am na bis boo xamante ni bii euh, dañ doon julli ci benn daara. Mhm. bi ñuy julli ba mu yàgg euh, am ko daal di jékki-jékki daal di wax ci biir julli gi ñuy julli. dañ ne waaye defarul. kii ne ko waaye duma ma defaru léegi moom ma nga cee wane ak àgg. Mhm. dafa jàpp ni àgg na ba lu ko neex def. te wóor na ko ni moom bu tëddee leer na ko ni tëdd ak nelaw génn donc mooy mooy mëccam. jërëjëf kon. rek ñu jël kooku nekk ci ligne bi ah, tey moom xol yëpp tooy nañ Touré xanaa di la ñaanal rek mbokk mi asalaamaaleykum. Ah, kooku kan la ak fooy woote ah, est-ce que ak sa Abdoulahi Bamba ñoo ngi lay nuyu baax di la ziare.